Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ak mbokk sénégalais yi ci kii di Mamadou Ibra Kane muy journaliste boobu jël ay waxam yi ñàkk teggin wax jëmale ci Serigne Mountakha Mbacké yaakaar naa ni moom bu xaw ma fan laa war a tàmbalee mbokk sénégalais yi waaye daal ñu leen di xamal sax njëkk rek ne leen sénégalais yi fi mu toll nii yeewu nañ li ngeen yaakaaroon démb nekkatul tey comme yéen yor seeni journal mel ni yéen a moom àdduna bi walla yor seeni caaxaan di manipuler sénégalais yi di leen fowee mel ni ku yor seeni doom seen yooyu moo doy Sëriñ Mountakha Mbacké li mu def nii yaakaar naa ne jërëjëf la yooyu ñun nag ci dëgg lañ far faruñu ci ay caaxaan faruñu ci fenn fu dul dëgg képp koo xam ne def nga loo xam ne lu rafet la di leen ko remercier ku def lu ñaaw duñ ci ànd ak yow ak koo mënta doon nag ak foo mënta bokk ndax xam nga waxal yàlla rek am solo wax ngir yàlla rek am solo wax dëgg fa yàlla ñun moom yàlla lañuy waxal te kuy waxal yàlla wallaahi yàlla lay may ndam wa rabbil kaaba billaahi wallaahi talaay te dëgg nag mooy mujj nag yéen ci ay caaxaan ngeen nekk Mamadou Ibra yow ak ñu mel ni yéen benn Assane Diouf mi ngay wax Assane Diouf dalli Assane Diouf moo la gën ndax Assane Diouf kenn defu ko ab journaliste kenn fayu ko moom mooy koo xamante ne si moom moo jël responsabilité am bëgg réewam ñëw di xeexal réew te kenn fayu ko si ñaari salaamaaleykum du ñaari dërëm buñ ko ci fay lu dul ay kaso ak i xas mais mu ñëw gis lu ko métti ci réew mu koy xeex Assane Diouf ak ñu mel ni moom su ma ko waxee waxuma ko moom dong ak ñu mel ni moom ñu bokk di ànd di xeex loo xam ne gis ay yàqu-yàqu ci réew mi di xeex gis nit ñi sonn ñuy xeex gis loo xam ne lii ja arrangé wu réew mi ñuy xeex ngir loolu d'accord bu fekkonte ni ay nit mën nañ wax si ñun wala ci ñi nga xam ne ñu ngi jóg di xeex ci benn côté mën ngeen wax ne woddu leen seen wax wala waxee leen nii wala waxee leen na li kon bu nit ñi demee ba juum rek kenn ku si juum rek ku ci nekk juumam ci lenn rek lay doon ci façon waxin mu wax mu saaga wala mu wax wax ji wodduwut wala leneen fekk mer ba toj jàpp ko ak xol bu jeex xamut nu muy waxee mu ñëw ak xëdër mu wax loolu mais xool leen lan mooy yéene gi lan moo leen tax a jóg li leen tax a jóg mooy dañuy gis lu leen metti dañuy gis loo xam du dëgg ci ci dëkk bi dañuy gis loo xam ay tooñ ñu bëgg Sénégal defaru ñu bëgg ñëpp yam ñu ñëw dëgg ci xeex kon kii kon du sa morom fay ñu ko ñaari salaamaaleykum mais yéen ñin fay ngeen am moyen mën a taxaw ci journal yi indilee loon ñu ay journal yu wér ay fen kase ngeen ñuy indil indi loolee la ñu dara loo xam ne lu dëggu la ci dëkk bi loo xam ne luy jëmale askan wi kanam la wala loo xam ne yërmande askan wi la loo leen saraxee askan wi di fen askan wi di joxe ay xibaar yu wérut bu dëkk bi tàngee jër ngeen jaxase dëkk bi kon dalli Assane Diouf moo la gën yow ak sa patron ak ñi nga xamante si ñoom nga àndal muy rek yéen système bi yéen ñëpp a yam mais seen naxaate yi ak seen foy yi moo doy sëkk ñun nag ay gone lan ñu taxaw ci dëgg nekk ci dëgg dañ cee nekk Serigne Mountakha Mbacké li mu def sama baat ca kaw seexaluma lem fayuma ñaari salaamaaleykum ba pare tamit ma dolli leen ko ci xaw ma dandee leen neex ko bu dee neex yaakaaruma ko yàlla laa yaakaar pour mu leer naa ñi soxlawu ma fayam moom ci boppam soxlawu ma fayuk sëñ Muntaxa Mbàkke man mi duñ jóob watawaasa bi daq barki alxuraan fayuk laa soxla ndax yàlla mooy fay adduna gi yàlla moo koy toppatoo lu fi nit yàlla moo la ko jox sëñ Muntaxa li mu am yàlla moo ko pour mu leer naa ñi pour ngeen xam waxuma ay parparloo mais ku def lu baax da nga koy wax sëriñ Muntaxa Mbàkke li mu def nii ñëpp dañ ko ci war a fekk si ndax dafa ñëw fekk si combat bi mu xam ne xale yii dëgg la ñuy xeex activiste yi li ñuy xeex dëgg la Serigne Mountakha Mbacké invité leen li mu def yoon la Serigne Mountakha Mbacké li mu def nii mooy dëgg nañ waxante dëgg te yàlla tax yàlla la borom borom bi dëgg la bëgg bi watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabri man ni lay ginaaru kenn nañu yaakaaruñ kenn man yaakaaruma kenn waxuma pour muriti kontaan ci man waxuma pour sëñ Mountakha sax kontaan ci man yàlla fay yàlla yàlla laa yaakaar yaakaaruma sëriñ Mountakha pour mu leer naa ñi seen bopp yi waxee ma kon waxi gëm-gëm waxi parparloo mais li am laay wax mu taxaa fekk na activiste yi di wax di xeex li ñuy xeex lan la dëgg la dañuy xeex pour ay góor jigéen ñi di xeex pour lan pétrole ba di xeex pour lan pour nit ñi dund jàmm ñu nangu pàkku jàmbur comme nengaleer la fa amoon activiste yi di ko xeex mu doon dëgg ñëpp teg seen bët ñëpp xam ne lii dëgg la bu njëkk nit ñi di saaga activiste yi di wax lu nekk sëñ Muntaxa ñëw woo leen invité leen li mu def gàcce ngalaama Mbàkke barki alquranu karim yàlla tax may wax waxuma pour lenn yàlla ko tax may wax waxuma pour ay murit yi nan ma dégloog naa waxuma pour tiya dama leen ku nekk ci dëgg ku def lu baax ñu wax ko sëriñ Muntaxa li mu def nii la dama ni dama ciy woo sëñ li mu def nii ne ko sëñ Bay Si Mansour fekk si li mu def nii ne ko sëriñu ñaseen boobu fekk si ne sëriñ sépp topp roy sëñ Muntaxa Mbàkke li mu def nii li mu def nii yëf yi ndaanaan la def Mbàkke barki alquranu yàlla rek tax may wax li mu def nii mooy dëgg ñëw gone yi di xeex dëgg gone yi li ñuy xeex nii lii mooy dëgg dëgg gu wér la li tax ma mën leen wax ni dëgg la barki Dembo Njaay doon naa wax fii su ma waxee ni ñu foog ni da ngay ay gëm-gëm soo waxee ma ni la dëgg la yàlla bëgg yàlla moo àtte jaam ñi bëccëgu ndar kàmb geen gis ko yenn sénégalais yi barki démb toogoon naa fii ma ne sénégalais fii muy Serigne Mountakha Mbacké muy sëñ Bay Si Mansour muy sëriñ Tidiane boobu nanu booloo ñu wax sénégalais yi ñoom seen waaw kase tabax nu hôpital seen kàddu dong ñoom bu ñu bëggee hôpital ñetti fan ñu tabax hôpital Serigne Mountakha Mbacké tàmbale ko tabax commencé tàmbale hôpital man wax naa ko démb la ma doon wax ne sëñ taxaa bu déw bu bëggoon hôpital ñu am hôpital Serigne taxaa nekk ca jéego yi gàcce ngalaama Mbacké Balaye sax man la loolu dama ko doon wax barki démb kon bu fekkonte ni sama wax yi ay waxi fen la wala nekkul waxi dëgg kon sëñ bi kon du tabax hôpital kon lu baax kon laa doon woote ci ak yiw ci yërmande askan wi moom bu ñëwee fekk si pour yërmande askan wi mu ñëw topp ci na sëriñ sëpp roy sëñ Muntaxa Mbàkke li mu def ni laa leen wax lii mooy dëgg ndax xale yii li nuy xeex dëgg gu wér dëgg gu man yi la danoo am dëgg danoo dem bëccëgu ndar kàmm sëriñ Muntaxa ne activiste yi li ñuy xeex lii dëgg la li ñuy xeex mooy li am te dëgg gu wér li ngeen teg seen bët mooy lan sawaay waay nan pétrole ba mooy tooñ nan mooy tuumaal na nit même bu nekk sax ci affaire sax ay ay pétrole ak ay leneen mais tuuma yi ñuy teg ci ay deru nit ay toog fii sawaay ay góor jigéen bëgg a ñëw manifester suñu dëkk wala dara nit ñi xeex ko xeexul lislaam xeex boo xam ne xeex boo xam ne chrétiens yi bëgguñu ko kenn bëggu ko ñoom ñëpp kenn bëggut lu bon ay jàpp ni tëj nangu pàkk jàmbur ci luñ tegut fenn nangu pàkk jàmbur ci luñ tegut fenn sama waa ji li nga wax dëgg la libéré Ndongo Diop bàyyi leen Ndongo Diop bi ngeen jàpp tamit bàyyi leen Ndongo Diop Ndongo Diop defu leen tous defu leen cent francs defu leen dara mooy li ñuy wax ci mode wax rek ci façon wax rek tàppale rek ngeen di def affaire aji saar googu ngeen war a lijjanti bàyyi leen Ndongo Diop dama ni leen lii mooy li nga xamante si mooy dëgg li ñu doon xeex démb di ko wax dof dof lu rek a fi am waaye dëgg gu wér peng la li activiste yi doon xeex barki alquranu karim góor ga nengaleer ba nangoo kiiwam ay toolam kor nga Ngom teg dil ah ak ñee ba mu ñëwee activiste yi ñoo ko xeexal ban delloo góor ga ay toolam ban delloo góor ga ay toolam lii Serigne Mountakha Mbacké bu ñu ci fekk see dama ne leen Serigne si ngeen roy Serigne Mountakha Mbacké li mu def nii nga ca yoon wa li mu def nii noona la li mu def nii Serigne bi sëñ Mbacké Mountakha la li mu def nii noonu ànd ak gone yi ñëw ànd ak askan wi waaye lu ci ëpp ci Serigne yi lan la def saraxe askan wi bu askan wi jaaree gauche ñu jaar droite yër amuñu benn yërmande ci askan wi mais dama ni ku tabax hôpital ñu ne la gàcce ngalaama dama ni leen démb waxoon naa leen ko de waxoon naa leen ko de ana ana taalibe yi ana ñeneen ak ñeneen ndax li ma wax ay fen la ndax lu ma wax du dëgg yàlla moo ñuy atte yàlla dëgg la bëgg looloo tax na gis nga koy wax dëgg nekk ci dëgg barki alquran karim billahi lazi la ilaha illa doo faale mindeef ndax xeexu yërmande la to ay hôpital lañ bëgg nit ñi faju danoo bëgg nit ñi nekk ci jàmm dama ni leen man satara naas satara laa ku teral ku teral nit ñi ku suturaal nit ñi yàlla suturaal la man karama naas karama laa ku teral nit yàlla teral la barki alxuraan karim olof moo ne yéene nekk la borom moo cay fanaan jàmm kase la leen yéene moo tax ñoo cay fanaan yàlla na nga dee taxul kenn dee dëgg la yàlla bëgg te dëgg mooy mujj barki alxuraanu karim dëgg mooy mujj dëgg rek la yàlla moo tax képp kuy xeex xeexu dëgg gii di am loo ci ragal barki alxuraan sa xeex dafa des da ngay xeex ngir dara da ngay xeex am loo ci ut wala ngay xeex ngir ngir ngir ngir mais képp kuy xeex ngir yàlla dong ak de dama ni leen yéene néeg la borom a cay fanaan olof moo ko wax olof moo ne lu waaye rendi ci loxoom lay naaj olof nee na lu waaye def lu waaye def boppam kon boog wax jooju wax ju wér péng la dama ni leen li ma leen di wax di leen woo yéen sénégalais yii nan bàyyi tappale nañ ànd ci dëgg dëkk bii ay tappale defarul dëkk nañ waxante dëgg nañ far ci dëgg loolu mooy dëgg barki alquranu karim ñu bàyyi caaxaan yi bàyyi tappale yi dama ne leen yow Mamadou Ibra Kane ku xamadi nga ko yaree dugg nga sëñ Muntaxa Mbàkke sa baay la li mu def sa baay defu ko li mu def sa ndey defu ko kenn defu ko ci moom fexe na ba lijjanti hôpital moom fexe na ba gone yi nekk fii muy xool solution ànd ak gone yi ànd ak ñi nga xamante ni si woo leen di leen encouragé jéema fay coow li lim def sa ndey defu ko sa baay defu ko moo tax lii da leen di wan ni rek askan wii ñii gëmuñu dara lu ñuy def rek ay diabolisé kase leen siy jublu jublu ci lenn pour lan sëñ bi fi mu toll nii ñëw na ba mu waxee ndax yéen li fi nekk ci ay problème li fi nekk ci lu garaaw amul looy wax ci sëñ Muntaxa naan dafa ànd ak activiste yi loolu mooy déli loolu mooy lu garaaw lii ngeen jàppee lu garaaw mooy kii dafa ànd ak activiste yi waruloon invité activiste yi xam ngeen ni xamadi ak yëpp sénégalais ak fowee sénégalais dama leen fo bi ngeen di fowee sénégalais moo doy sëkk stop bu leen fontoo nit ñi nañu gëm suñu bopp nañ ànd defar suñu réew lii sëñ Muntaxa def nii bu ko defee ñu ànd ak moom maanaam sëñ Muntaxa ci boppam lii nii bu ko defut woon mu wooñu ci système bi wooñu ci leen du ànd ak moom dëgg la yàlla bëgg daf fi wane loo xam ni yëfi ndaanaan la yëfi gor la mu ñëw ànd ak askan wi yërëm askan wi ma ni la moom ba ci moom ci boppam Mbàkke Balla Aysa bu woote woon pour woo ñu ci Macky Sall wala woo ñu ci seen dun ànd ak moom mais nit bu defee dëgg def lu baax da koy da nga koy gàcce ngalaama mais lii li ngeen di wax xamadi li ngeen di ay diingat mag ñeeg xamadi yéen la barki alxuraan ko seen système bii la dara ngeen gëmul dara seen bopp ngeen gëm seen poos ngeen gëm seen bopp ngeen gëm seen poos ngeen gëm moo tax mbokk taalibe yi li ma leen di woo di leen woo yéen ñëpp maanaam wax dëgg yàlla sëñ Mountakha yàlla la yàlla fay li nga def rafet na li nga taxaw rafet na lii ngay def nii Mbàkke Bàlla maa ngi ciy woo sëñ Bay Si Mansour lii ma sëriñ Ñaseen bi xaw ma turam maa ngi ko ciy woo lii maa ngi ciy woo bépp sëriñ bu nekk Sénégal ngeen roy Serigne Mountakha Mbacké li mu def lii bu ngeen ko defee yéen ñëpp Sénégal jëm kanam bu ngeen ko defee yéen ñëpp Sénégal doon jàmm waxee ma ci ay côté diine ci côté patriote bëgg réew mi laa leen wax ab kilifa nii nga war a taxawoo bu dëkk bi tollee ci ay problème toll ci ay kii nga ñëw defar ko jéem a xool lijjanti ay hôpital lijjanti école ak yooyu ngeen def noonu ci loolu la leen woo yéen ñëpp ngeen ànd joxante loxo amul sax ay comme kii sax waa Touba ak waa fële mais yéen ñëpp ci war a ànd ñëpp rafetlu ko ñëpp remercier ko ñëpp roy ko ci barki alquranu karim yàlla ko ta tax may wax waxuma pour par par loo samay wax leer na naa ji prima man duma ku nii jënd nekkul da ngay wax ba ñu naan kii est-ce que est-ce que fayuñu ko est-ce que muriti ko wala dara pour mu wax waxuma pour ay bégloo murit waxuma pour bégloo tijaan dëgg laay wax dëgg li nekk man murit bi bég tijaan bi bég ibaadu bi bég chrétien bi sama yoon nekku ci dëgg laa àndal fu dëgg nekkut ànduma ci te amut lu ma ci tiit wala di ko ragal wala di cif tafi barki alquranu karim yàlla ko tax may wax yàlla kase moo tax kuy wax nag ngir yàlla yàlla miy dammaate yàlla miy raye yàlla mi kii kooku ku yaakaar sama waay lan tiit lan ngay faale damaa toppatoo kenn kon yàlla kon moo tax mooy wax dëgg neexut dama di leen sëriñ Muntaxa lim def nii noonu la yàlla na ko yàlla fay li muy def nii wax dëgg yàlla dafa rafet barki alquranu karim kon boog fi mu toll nii nit boo demee bay wax na nga wax loo xam ne donte sëriñ Muntaxa la laa pour ma leeraat naññi si seen bopp yi ak ku mu mënta doon ku def lu dul yoon ci dëkk bii da surtout luy saraxe askan ku def loo xam ne ngir sa njaboot ngir yow sa bopp yow la concerne loolu sa yow la concerne mais kuy def luy saraxe askan wi ak ku mu mënta doon santal Mbàkke santal si doonal xalifa doonal koo mënta doon danañ ko teg ci taabul bii ndax dangay ngay saraxe askan wi dañ koy wax dut ko ci baaraam mais ku def lu rafet da ngeen ci war a ànd da ngeen ci war a ànd yoo ko yenn yi ak xamadi la ak kii ndax bu dee dangay wax wax nii rek maanaam ku nekk sëriñ mun Muntaxa kilifa la am ñum nekk seen kilifa kon boo demee bay wax ci moom la ngay wax na doon lu waxu quoi mais nekku seen wax xamadi yi lii mooy xamadi te mu doon sa baay tekki wala doon sa maam yéen yabaate kase ngeen def barki alxuraan ka mais dëkk bi dana baax de incha allah dëkk bi dana jub ndax dafa am ñoom ni fay ñu leen ñaari salaamaaleykum ñu toog di wax ngir yàlla di di wax ngir yàlla kottu tax ngir dëgg kase yoo tax dama ni leen ku gis nen nen na ngi nii mbàkke baal la yàlla na yàlla fay sa taxawaay rafet na waaw ñu ngi woo yeneen sëriñ si tamit ñu ñëw toppandoo la ci lii maanaam ñu roy la ci lii ndax yàlla suñ borom dafa wax ci alxuraan ne si na fi xayraat njëkkante leen ak yiw ñi ngi xaar sëriñu tijaan bi nga woo activiste yi ñu ngi xaar nga ñëw jéem a tabaxi hôpital wala woo ci woo ci woo ci kii yi wala ngeen booloo ko sa yéen ñëpp sax woo ñëpp ñu ngi ciy xaar chrétien bi ñu ngi ciy xaar kenn lu ko fi waaye wax fi mu toll nii sëñ Bàkk kii sëñ Muntaxa jamono yi lépp loo xam ne nit toog nga boo ko fi da bëgg a saboote da ngaa bëgg a tooñ te ku jara fudd nga nag ñëpp nag ànd ci nag ndax lim fi def daf daf fi def lu rafet ànd ak activiste maanaam jël kii wam ni hôpital maanaam lii leen soxla woon ndax man lii dama ko ci lii dama ko ci doon woo man mii kon tey jii tamit man tamit am naa dëgg ci yéen yàlla mooy àtte bëccëgug ndar kaam barki alquranu karim yàlla mooy atte bëccëgu ndar kàmb yéen sénégalais ci gono yu tuuti yu xonk coy yàlla atte mu leer naañ ngeen teg ci seen bët man maa fi doon woote ci alquran saa yi ngeen ma ndey ma fi woote naan sëriñ Muntaxa mbake sëñ Mbay Si Mansour ak sëriñu ñaseen boobu bu ñu taxawoon pourquoi duñ tabax ay hôpital pourquoi ñoom mënuñoo seen ñaari fan ñetti fan tabax nu hôpital léegi loolu ñu wax noonu leer na naa ngi sëñ Muntaxa ba mu taxawee pour hôpital ay fan hôpital bi taxaw na nañ waxante dëgg dénkante dëgg faalewul leen yàlla rek leen faale wax ju ko mu déranger wala mu metti la nga màtt sa bakkan salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.